sa souvenir bi gën a neex ci tamxarit très balaa ñu ndar képp dem si Moodu. mu wax neex ci tamxarit waaw. Euh, dañ demoon taaja boo ni am xaalis bu bari. ñu demaat benn kër sàcc fa football. loolu neex na ma trop duma koy fàtte football bu nooy. luy football. football ko bal. dem sàcc fa bal. waaw dañ jox ba pare ñu romb rek fekk bal gars yi ngi jógee Europe bal yooyu mosuñ koo gis mooy tubaab yu nooy yi comme original yi. ñu sàcc ko yóbbu ko tam xarit bu mu neexoon na ci man bal neen ci ba mu xoosu ñuy ñaw rek di defar <laughs> boobu mënuma koo fàttee fële ci Gàmbi. Mhm. d'accord.